la direction de l'emploi amaloon atelier de formation ci diirum ñaari fan fee ca caajaay ngir former lu toll ci ñeent fukki jigéen ak ñaar ci ni ñuy defaree saabu ak eau de javel. femmes yi dajaloo fii ñu ngi dajaloo fii ci kër Soxna Ndey Thiaw doon GIE boo xamante ne dañu fi dajaloo woon pour benn liggéey bu takku bu am solo bu ñuy def mu nekk naka la ñuy defaree saabu. ak or de javel ba nga xamne dinañ ci mëna jariñ seen jaring jariñ ci seeni njabot jariñ ci seeni dekkando ñu def ko nak ci ñi nga xamantene ño leen ko defal muy wa direction de l'emploi seen directeur diriger ko ak ONFP. mu nekk lu am solo ngir jigen ñi mëna am ci lu ñu jàpp. ñu ngi góorgóorlu suñu leen jàngalee li dinañ ci mëna jariñ seen bop dinañ mëna demal seen bop bu ñu ko defaralee seen bopp di ko jaayaat di ci am seeni recette di ko dugalaat ci seen njoboot di ko dugalaat ci seen bopp di ko dugalaat aussi ci seeni dëkkandoo parce que ñëpp dinañ ci jariñu société bi dinañ ci jariñu en général. Ndeye Codou bàyyeekoo ci direction de l'emploi di rafetlu solos formation bi le ngir jàppale jigéen ñi nga xam ni dañuy entreprendre. fait plaisir la daf may neex loolu may ñëw di leen tàggat. ci yenn yi naka la ñuy defaree saabu ak eau de javel parce que boo leen xoolee produit yi ñu fi defar nekk na loo xam ne chaque jour dañ koy utiliser nit mënul xëy te du laal saabu wala mu laal eau de javel loolu loolu mënul ñàkk léegi nag euh, ku defar loolu di ko jaay tamit foo jaar di nga jaay parce que ñëpp dañ koy soxla moo tax c'est un plaisir may gis famille yi di leen former su ko defee ñi ciy liggéey di ci am xaalis loolu dafa nekk loo xam ne daf may neex daal voilà xam nga ñun suñuy mission promotion de l'entrepreneuriat féminine daf boko. Madame, maanaam jàppale jigéen yi nga xamné dañuy démal sen bop parce que ñëpp xam nga ñoo dugg ci entreprise di liggéey il faut jigéen yi am ño xamné dañuy démal sen bop légui nak jàppale len dañuy démé ay Mali wala fenen ak fenen di fa jëndee ay saabu té ñu ko défar sen bop té duñu dem ba Mali di jënd matière première Sénégal bini ni lañ koy amé té bo leen xolé président Macky Sall ci waxam yépp da naan consommation locale Macky Sall da ci insister toujours moo tax c'est c'est c'est important ñu ñu ñu tàggat leen si su ko defee li nga xam ne ñu ngi koy bayee mu am ci dëkk bi ñu siy defar lii di jaay. ci diiru ñaari fan yooyee jigéen ñi jàngee nañ ci ni ñuy defaree eau de javel ak saabu yu ci mel ni saabu carotte nep-nep nebedaay ak fuddan. Euh, démb dañ fi tase jël eau de ak ndox ak tuuti xeme xooj ko bu ñu xëyee si lañ segg. segg ordre soil bi mooy yee toog euh, xooj tuuti xeme liibar ak genwa liibar xooj ko bu ñu xëyee si lañ defar euh, saabu karoot saabu nem-nem ñetteelu saabu bi nebedaay saabu nebedaay ak fuddan ak saabu fuutukaay moom lañ fi defar si diiru ñaari fan maanaam li may wax population bi saabu yi tey suñ ko doon jënd dañuy dem di ko jënd ji ay Mali wala leneen yàlla def ñu ngi koy defar ñun faamu caajaay di laase ñëpp ku bëgg a jënd da ñëw si ñun ñu jaay ko ndax defal nañ ko saabu bu sel eau de boo xam ne dafa sell na ñëpp ñëw jënd ñu mën a defaraat pour gën a avancer si kanam.